All of our friends. yee ya, asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp ci nekk sa tur ak sa sant di leen ziar di leen màggal di leen ndamoo di leen titro di leen bëggee bu wér a wér a wér tay di samedi normalement bu fekkoon ni comme ni nga ko doon defee combat politique yi nga xam ni eh, en bas de la ceinture la donc tey opération rëbb dëgg mu la doon tous les samedi mais comme. lu ko indi lu indi opération rëbb dëmm c'était l'affaire de Adji Sarr Ousmane sonk bu ñu jëlee politique bi yóbbu ko ci en bas de la ceinture di wax ay waxu kii laal na kii diw ñam na kii wala diw piis na kii wala gis na string bi wala soos na ko donc ba ñu yóbbee foofu politique ba ñu won leen ni ah xaaral ñu dugg ci seeni 18 nag xool kan kan moo ci kan moo ci juddoo ci en bas de la ceinture ci lu lu daganut ak kan lañ fi indi ci tooñ après gis ngeen ni ñu ci bari ci ñoom ñi nga xam ne ñoo <laughs> créé loolu ah, seen baay daa tooñ seen yaay ci ñoom ñi nekk ci njiit yi nekk ci nguur gi donc fu mu nekk nii comme loolu tegee nañ ko ne le ah ñun tam ñu tegeegum ne pour l'instant mais nag gis nañ la ba léegi gu cagatu de ñu ngi ci cagatu gu métti sax waaw voilà ki nga xam ne muy macuucu fay ba léegi bàyyeegul cagatu maa ngi yore ay dossier ba léegi ay caga yu bees la yor ay caga yu bees am na koo xam ne mu salon la ko mujjee ubbil euh, salon de coiffure ak ay di jaay ay cheveux ak ay def pédicure ak manicure ma cuucu fay mu daf feebar grand boobu moom dafa sibboon kooku moom yaakaar naa ni dee mooy tax euh, du bàyyi ni muy doxalee ma cuucu fay ba euh, <laughs> di meeru mais nag léegi mu jeex léegi mu jeex incha allah soobee yàlla waaw bu fekkee sénégalais nag bëgg nañ ko dàkkal parce que gis nga nag gis nga wax ji nu mu neex neex neex affaire bi sénégalais yi la ci ñoom la des ñu bëgg dund ci mbuumu jaam wala ko buumu jàmm kese képp ko lay wax naan jàppaleel ñële da cee gis boppam waaye ñi nga xam ni gis ñu seen bopp ci nguur gi ñoo ëpp foofu ñu gis seen bopp ci nguur ñi nga xam ne dañoo gis seen bopp seen nguur soit seen bàyyi di encaissé wala ñuy encaissé wala seen i maam di encaissé wala seen nijaay di encaissé ñooñu buñ sañoon continuité mooy am ba ilaa yow mi din mais yow mii nga xam ni sa yaay day feebar am problème mu faju man sama yaay daa am problème mu faju man day feebar am problème mu faju bët ba ngi noonu dañ koo toj bët bu metti cataracte mu dem di ko faji docteur ba loxati bët ba loxati la ko daal toj bët bi toj toj toj toj bët bi di tuuru ba jeex tàkk mu loxati ko teg tegee ko ne <laughs> man mi donc man tey système boobu loqati sama bëtu yaay ji toj sama bëtu yaay bi ba loqati ko ndax cataracte kese nga loqati sama bëtu yaay toj ko loqati ko système boobu noonu hmm? bu dee day def ay conséquences man dund naa ko ak yeneen ak yeneen taal suñu kër sama nekk fa di nalaw ak ay ay doomam <laughs> donc système boobu noonu tey bu ma gisee ab nit naan nañ ko continuer damay xam ni kii dëmm la kii nooxóor la bu sañoon. système boobu day continuer ñuy topp bëtu nit yi ku feebar ñu jam la ay mais ñaata ñoo lafañ Sénégal ndax ay piqûre ñaata ñaata lafañ yoo xam ne juddoowuñ ko ñoo nekk Sénégal ndax ay piqûre ñaata ci nguuru Macky Sall bi ñaata yoon nga gis ay faux faux médecin ci nguuru Macky Sall bi nga gis kuy opéré nit bu am fit mel ni man toog ubbi sa cabinet di opéré waate di yàq ay biir de nekk ci APR ñu jàpp la ci nguuru Macky Sall la ñun bëgg nañ continuité boobu ñun bëgg nañ continuité boobu ñaata faux docteur ñaata faux euh, journaliste ñaata foo policier ñaata foo gendarme ñaata foo loolu yëpp ñaata foo usage de foo ñaata foo billet ay milliards nga dégg ci nguuru Macky Sall ay faux billet Bougazelli du ma bàyyi ma fenn faux yi nga xam ne tey jii ñu ngi koy wax ci primature <laughs> bàyyi ma fen booy ñëw likaas yi ñu jàpp booy gendarmerie GIGN yi ñu jàpp Bougazelli mooy seen maam te lépp Thiès la jóge seetlu leen mbirum phobie lan moo tax phobie yëpp di jóge Thiès ah loolu war ngeen ko lijjanti doomu Mbaye Ndiaye Ndiaye Mbaye Ndiaye bu euh, Parcelles Assainies fàttaliku leen phobie yi ñu jàppoon doomam ji ak ay milliards Thiès lañ ko jàppee woon ñi nga xam ni ñoo yoraat faux bie yii nekk GIGN Thiès lañ leen jàppee Bougazelli faux billets yooyu nga gisoon noonu euh, euh, billets noirs yi ñu doon war a raxas cees la jógee donc sénégalais yi waroon nañ mun a takk xalaat ne mais lan moo tax foo bie yëpp milliardaires yëpp foo bie yi di jóge Thiès lu lan mooy problème bi lu xew Thiès ñoom El Hadj Abdou Aziz bi tey ñun jàpp. ñoom likaas yi ñu jàpp gendarme yooyu yi ñu jàpp GIGN yeeg yeeg ñoo ñuy jàpp na <laughs> loolu la donc waroon nga mun a wala rim remind ne lan moo tax affaire bi ñu ñu jàpp ñëpp ci foo bi Thiès la jóge te ñooñu ñëpp tourne autour de la paire le même système ça tourne autour de la paire doomu Mbaye mbay Mbaye Ndiaye APR la

GIGN El Hadj Abdou Aziz Bitey, hein? son collègue Moustapha Ndiaye hein? Lucas Gomis qui qui étaient en possession de billets noirs hein, ñooñu yëpp Thiès lañ leen jàppee ñu ngi sax ci kaso Thiès bi doomu Mbaye Ndiaye bi mi ngi billets noirs. Thiès bi Bougazelli Thiès la billet bi jógee donc même magasin même magasin même magasin fu tibé milliards milliards faux billets bien billet noir donc tout ce système là etc etc c'est un sujet ni mais parce que dañuy dugg ci un sujet mais te ñu dugg conscience pas dossier parce que les dossier dossier le dossier est là. Voilà. Le dossier est rédigé par des gendarmes, des familles des gendarmes qui m'ont envoyé le dossier. Bouy Setal, qui nga xamné moy après les enquêtes. Mais dossier bi y na a bu yag parce que dafa amone ñom sen guerre bobu ñu nek di def donc am ay gendarme yu ñu jël yu yu wër Amadou Ba yo xam dañuy garder gouvernement mo leen délégué ñu ñuy top Amadou Ba diko garder donc am ñu nek APR ñu ponkal APR ñu andul ak Amadou Ba bu ko daaneel dem moo tagaleen histoire bi vite fait donc depuis le renouvellement le renoncement de Macky Sall à sa troisième candidature en 2024 les dauphins du président se livrent à une guerre sans merci au sein de la paix pour se positionner comme le successeur. Babou dans ce siège, euh, des autorités de du Benno Bokoyaka ont ourdi un plan pour discréditer le ministre Amrouba, qui apparaît comme le candidat Babou le wax ni dossier bi yor naa presque un mois mooy jamono jooju jamono jooju lañ ma ko de ñoom ñu ñoom ay gendarme rédige affaire bi jox ma ne ma la affaire bi demee moo laa am ay itam yu ma boobu Amadou Ba sax choisir guñ ko ñoom ñoom seen biir xamante donc ñu gis ni qui apparaît comme le candidat le plus en vue à la succession de Macky avec la complicité d'un garde du corps du nom de Lucas Gomis a été chargé de faire le sale boulot en impliquant son ami gendarme du GIGN Elage Abdul Aziz Bité. Le plan était simple, sachant que ce dernier faisait partie, Abdul Aziz faisait partie de la garde rapprochée du Premier ministre Amadouba. Lucas Gomis a sollicité son ami pour venir pour lui venir en aide dans une affaire de faux billets qu'il devait régler à Thiès, à Sali. Et ce serait rémunéré à hauteur de 150 millions de francs CFA. Motivé par l'appât du gain facile, le gendarme Abdou Aziz Bitei, a invité son collègue, un autre collègue, qui s'appelle Moustapha Ndiaye, pour qu'il se rende à Sali, retrouver Lucas Gomis qui était déjà en possession des billets noirs qui lui avaient été remis par un leader de, du Benno Bokoyaka, un argentier. Ce que les gendarmes ignoraient en ce moment, c'est qu'un piège, c'est qu'un piège leur avait été tendu sur place en complicité du commandant de brigade de Sali. Une fois sur place, donc, les gendarmes sont descendus du véhicule de bité en laissant Lucas sur place. Ce dernier en a profité pour alerter le commandant de brigade qui est venu les cueillir. Mais il n'avait pas trouvé les gendarmes sur place. Il a amené Lucas et un véhicule. La version qui dit que les gendarmes ont fui en laissant le véhicule sur place est totalement fausse donc gendarmes, gendarme ne ñoo pas xam parce que ay enquête gendarmerie la donc xam ngeen xamu ni gendarmerie dañ taw pas fa auto bi donc euh, procès verbal gendarmerie ce que les gendarmes ignoraient en ce moment en ce moment là c'est qu'un piège leur avait été tendu sur place en complicité du commandant de brigade de Sali je vais donner son nom après une fois sur place les deux gendarmes sont descendus du véhicule de butée en laissant Lucas sur place. Ce dernier en a profité pour alerter le commandant de brigade qui est venu les cueillir. Mais n'ayant pas trouvé les gendarmes, fait que Aziz Daounen sur place, il a amené Lucas lui-même et le véhicule. Maintenant, la version qui, qui dit que les gendarmes ont fui en laissant le véhicule sur place est fausse. Ces derniers, mis au courant de l'arrestation de leurs soi-disant amis, sont venus pour régler le problème entre collègues. Mais le commandant qui avait déjà reçu des instructions leur demandant de monter dans le panier à salade, ce qu'ils ont refusé. C'est par la suite qu'ils sont rentrés sur Dakar en informant le supérieur hiérarchique du problème. Sur le champ, ils ont été mis en tôle en punition d'ordre intérieur à la caserne Samba Dial mise au parfum de cette affaire, Amourouba, conscient de la mauvaise publicité que l'arrestation de ses gardes du corps allait causer, a tenté d'étouffer l'affaire. Parce que dañ ko le ces gardes la ñuy jàpp fële trafic de euh, faux billets euh, ci milliards. Mais c'est sans compter les leaders politiques de la paire du Benno Bokoyakar qui a informé, qui ont informé Macky Sall de ce qui se tramait sans lui dire que c'était eux qui étaient derrière toute cette affaire. Nous avons wax ko Macky Sall def dil beug a daane Ba daw wax ko Macky Sall gaaw ne ko nañ ay garde corps Ba autour de Amadou une affaire de Phobie de milliards, de trafic de phobie. C'est ainsi que le président a donné des instructions pour que l'affaire soit portée en justice. Les deux gendarmes, Moustapha Ndiaye et Abdou Aziz Bitey, ont été déférés à la prison de Mbour, où ils étaient séparés de Lucas Gomis quelques jours après le déferment. Ce dernier a changé de version en chargeant les gendarmes qu'il a accusé d'avoir procuré les faux, les femmes via un homme politique puissant. Pire encore, lors des interrogations des gendarmes, le commandant de Sali leur a demandé si c'est Amadou qui leur a donné les phobies, Ce qu'ils ont d'ailleurs nié. Lucas Gomis a bénéficié de l'assistance, parce que je ne sais jox pour mu jël ay gendarme yu parce que ci lañ donc à bénéficier de l'assistance d'un avocat payé par les par certains leaders politiques de Benno Bokk un certain maître Tal, quand ils ont été transférés le 38 2023 à 15h à Rebus, alors que Lucas était à la prison de Mbour, alors que tous les faits se sont déroulés à Sali et non à Dakar. Donc, pour le gendarme Abdou Aziz Bitey et Moussa Fadjaï, ils sont présentement en ce moment à la prison de Thiès. Et pour Lucas Gomis, il est présentement euh, à la prison de Dakar. Donc, ngeen gis ni guerre interne pour éliminer ki nga moy euh euh Amadou Ba moment bi nga xamni ñi ci problème choix donc ñu ay leader APR yor alal récupérer ki Lucas Gomis qui moi Abdou Aziz buté boy, boy, sacrifié ndax bëgg ay élément GIGN Qui Abdou Aziz buté mi ngi ci kasso bi jamono ji mi ngi prison wu Thiès qui ngeen di dégg ñu naan japp nañ Abdou Aziz buté Moi Abdou Aziz buté qui la Abdou Aziz Lucas Lucas Gomis mi nii donc kii lañu woo tegal ko dil parce que moo xam garde corps euh, Amadou Baye ñu euh, ñi nga xam ne ay GIGN lañ ne leen da ngay leen di contacter jox leen jox leen xaalis pour ñu jël ñu ñëw Thiès récupérer xaalis. Euh, yóbbu ko fi nga xam ni moom mooy Dakar diggante bi nag ñu jàpp leen voilà euh, am na aussi Moustapha Ndiaye ñun ñëpp ñi ay xale la ñu ñu sacrifier nii ndax des trucs politiques ba yàq seen àdduna ba tey ñu ngi ci kaso yi sincèrement te politiciens yi ñu ngi dox seen soxla moo tax nit ki il faut nga xam ki nga doon amna na xam buñ la ci duggal ak nu mëna mën rek moytul parce que lu tooy ci yow lay jógee du jóge ci keneen voilà ki nga xamné nak euh mom moy commandant bi mi ngi tudd Insa sec commandant bi mi ngi tudd Insa sec bi tey mi ngi dëkk Malika cité Sonatel euh, euh, Abdou euh Abdou Aziz bi euh ki nga xamné moy mustapha mom mi ngi dëkk Petit mbaw Moustapha Ndiaye ñoo ñëpp nak seeni parents ñi ngi jooy te noppeeguñu waaw seen parents mi ngi jooy te noppeeguñu parce que Moustapha Ndiaye a ses deux parents décédés il vit avec sa femme et ses frères et sœurs yo xamni mi ngi moo leen doon jël en charge voilà le procureur bi nga xamni mo leen placer ci kasso bi euh, mi ngi tuddu

mooy indi mucc politique Sénégal dafa salte te setagut politique politicienne moo fa am ba léegi amaguñ politique bu set politique boo xam ni gor sax dina ci ñime dugal loxoom lii nag boo gisee mu am loolu parce que dañu buggoon ñoom ñu ne Amadou Ba moo yaba booy yi pour ñu indi xaalis bi mu weexal ko pour mun a def campagne am loolu yëpp ñu ngi woon ci seen guerre bi nga xam ne ñu ngi existe jamono jii entre ñoom ñuy reyante entre ñoom ñuy reyante donc di leen xamal ni Sénégal il faut ñu jéem ko góor góorlu pour changer gorgorlu pour changer ko parce que dafa jot depuis jamono Abdou Diouf ñi souffrir ñi ngi dund nakar di dund ay mettit di dund ay crime non élucidé di dund ay ray yu ñu gis nit yu ray ba légui mus japp euh criminel ba barki demb la fi mujj ci euh Kédougou ci Sabodala ñu ray ay nit ay nit bakkan tiire len ay bal ñaar ñi dé 5 blessés graves ba suñu jonn yalla tay japp ñu kenn te gis nañ bal gis nañ nit yi dé bu gisu leen benn policier wala benn gendarme bu ñu jàpp donc ñom bu féké ay gendarme lañu utiliser ñu ray ay nit duñu len japp bu féké ay gendarme lañu utiliser ñi trafiquer faux billets dañ len di japp donc kagn le faux gën doomu adam kañ bakkanu doomu aadama foobee dañ koy jàpp di ko taal mais bakkanu doomu aadama kenn mënu ko indiwaat ñoom bu ñu defee ay foobee ñu jàpp leen ci seen i dil dañuy jàpp gendarme yi nga xam ne ñoo doon dugg ci mbirum foobee mooy problème mu ñoom likaas bii nii mais léegi ñoo gendarme yooyu dañuy rey sénégalais te kenn du leen jàpp donc ñaar ñi nga xam ne lañu ñu mujj a rey tiire leen ay bal fetal ñëpp gis bal fetal yi gis ay néew gis direct bu touru mus ñoo jàpp kenn ko xamni rayna ben sénégalais indi ko ci sénégalais ne leen kii moo sénégalais tel donc muy woné ni amuñu cër ci suñu bakkan muy woné ni jappé wuñu ay lapin muy woné ni amuñu wuñu sax ay nawle léegi nag loolu ko wara xam gendarme ak suñu frère policier xam bu la joxul

buñ ko bañé it ci kasso ba lañuy muju parce que <laughs> gis ngeen ci kenn gis ngeen ci ñaar ñett juroom du jeex amna ko xamni yeena ko fi ma sha allah ci ay ordre la doon bëgg démé mu bañ mais gis ngeen nu mu mujjee donc mënuñu leen chargé ne policier yi liñ leen di deflo buñ ko deful ñun dinañ leen ci mëna a parce que ñom dañuy dem ba nga xamni dañ naan. Parce que nous savons que les policiers, les gendarmeries, tout ça, souvent les militaires ont commencé. Les militaires, nous savons à 80%. Nous les militaires. Nous avons fait les euh, fibre patriotique. Les Sénégalais ont fait une Nous les militaires, nous sommes militaires, les sommes militaires, sont les militaires, nous sommes militaires, nous sommes militaires, nous principes. armée bi quatre vingt pour cent yoo ci wër du ay principe de chômage endémique moo leen yóbbu armée ba dañ toog ci koñ yi ba seen taat yi tàng réussir luñ ci seen jàng dematuñ dëkkuñu toog xool gos xool droite ñu dégg ni ñi ngi engagé ñu taw dem dàq ji seen chance donc demuñu fa par principe demuñu fa ci gëm-gëm ni bëgg ni dañoo bëgg dañoo bëgg a défendre seen drapeau

ndax ni ma yàgg militaire pour défendre ma patrie mais man mii nga militaire quatre-vingt-dix pour cent militaire militaire chômage toog ci koñ yi cartouche, xamuñu fu jëm ñu dem mu donc ñoo avons du am patriotique fibre patriotique parce que demu fa ndax principe dafa dem ndax pour ay besoins culinaires weccet bu mu lekk kooku day liggéey la ko def liggéey da ciy liggéey kon du du envie wala fibre patriotique moo ko fa yóbbu loolu moo tax suñuy militaire bëgg fecc bëgg taaxuraan bëgg bëgg woy loolu moo tax dañ ko bëgg parce que fibre patriotique boobu nekkul ci ñoom loolu moo tax militaire boo ci jox fetal di tiire mu tiire ko mais pour faire défendre sénégalais Sénégal Si ko tax le le les militaires algériens printemps arabe le président wax na leen tirer les ñu ne non duñ président bi nan lañ mën le peuple boo xam défendre algériens président printemps arabe même chose fi nga xam moy Égypte bu sen président bi nekkee ci euh, ñukay koy destituer peuple bi chef armée bi ils ont commandé généraux pour militaires tirer sur seen population ils ont catégoriquement refusé parce que tout simplement ne la ñun mënuñoo tirer peuple bi nga xamni ni ñun suñu garaat mom moy di len garder donc lu lay li ngay garder na nga koy tirer diko ray

boo demee Saint-Louis dañ la koy wax ne la El Hadj Diouf football la mus a gëm bu ñu ko xamee ba léegi booy pël foo ko fekk loo ko may mu dem takkale ko dam jënd ci ay crampon fëgg jaay dem jënd ci ay kawas dem jënd ci ay mayo kooku yàlla moo ko may lii mu am am na ñeneen ñu mel noonu am na man moment boobu man militaire laa bëggoon doon sama rêve yi militaire nekk booy bu ndaw di jàng ay tóoj di jàng ay wàcce di jàng ay gëm ko nag mu nekk sama subconscient ma gëm ko malheureusement du woon sama destin ñi kaw Kaolack ma dem ca camp ba quand c'est mu dimit rang tàng jër ma rang dem gars yi rang kutu kutu kutu ñu am ñu jël ñu am ñu bàyyi man ñu bàyyi ma dem ñippi booy bu ndaw laa la wax de te dama doon jàng école jàng <laughs> di jàng ma papa yëguluma yaay ba may daw di dem quand c'est mu dimit foofu noonu di fa rang dem yóbbu samay dossier di fa rang boobu Euh, c'était un vendredi soir damaa jàng ba pare wàcc taw dem kanse mu dimit rang fa jëluñu ma ñu continuer euh, bu dañuy engagement yi dañuy def dañ koy développé après ñu dem euh, booy dem kii lu mu tudd ci booy dem Diourbel dëkk boobu avant nga Diourbel départ Gossas ma yow fajar parce que dañ ma tension mooy kii bu ñu takk nii ne tension xam nga affaire tension yooyu noonu xam nga yooyu moom affaire ragal rek yàkkamti wala émotion sax mun na tax say tension yëg quoi nga tàng wala yooyu noonu parce que ma doon am envie doon militaire ba jël arme yi ba jël arme ba dem guerral Sénégal xeexal Sénégal loolu laa loolu mos a gëm donc après ñi ñu ne affaire bi après Kaolack euh, Gosaas la ma daw dem Gosaas. ba may dem Gossas ci kenn yëgul ba léeg samay parents kenn yëgul dama doon doon militaire te samay parents kenn yëg ma dem wut samay sump mbuusu sump di ko màcc parce que dañ ne ma sump day day quoi gi day day kii day day day day dalal day dalal pour tension bi sump ma dem wut sama mbuusu sump dama màcc sump bi màcc sump ba sama gémmiñ gi eh, eh, rocce ko match sump ba sama gémmiñ gi rocceeku yon bi yëpp dama ko match sump sump di match, di match, di match, di match, di match. malheureusement ma yegg ci camp ba sama bir bi di taw mu yalla bu la natto dara doo ko taxaw di kéxal sama Sénégal gaay yi xamuñu ni demb la won match sump bi ba ma sama bir bi di wur wuree nak ma nga non nak wur wur gum bir bi def lo xamni mara ma ne allahu akbar fii la fii la ma yàlla doon xaar ñaqutoo xat ba may taxaw waa ji ma dóor kii bi xam naa ni pertinent bu yàgg ma <laughs> sa waaye ni ma def sump bi baaxut yoon yëpp de Kaolack à Gossas dama ko macc ba sama sama làmmiñ bi furi ñu dàqati ma au lieu ma ñibbi ma toog di xool ga booyuñ jël boo ñu jël rangale leen ci salle de classe yi def n'en taatu neen gel bi ñëw di di peese seen xuur yeeg affaire yooyu ma leen di xool di j'étais content je jeune nii dina xool na oh ni dem nañ oh parce que j'avais l'amour de représenter mon pays de prendre les armes pour ma nation ma patrie pour défendre ma patrie pour défendre les drapeaux ma taxaw leen xool di xool boy, ni leen di def leen taatu leen dugal leen rangale leen nii ci salle de classe salle de classe ay salle école la sax école la te dàq nañ ma de ma taxaw ni di xool gars yi booy naan di leen envier waaw ñu jël ñooñu après ma ñëwati Kaolack toog ndànk kenn xamul ni man dem naa di wëri tewaat renseignement ñu ne ma léegi euh, dakaar la Géejawaay ma ne Géejawaay ñu ne ma waaw ñu ne ma ci camp euh, camp sapeur pompier bu Géejawaay ma toppati gars yi contingent ñëwaat ci camp sapeur ba dóoraat sama 4 5 sump sump bëriwutul 4 5 sump match ba mu taxaw ma ñëw taxawaat ca camp sapeur pompier bu géejawaay ñuy dóoraat rengagement jëluñu ma nag ma ah kon nag lii du sama destin dem eggali sama école continuer samay jàng booy bu ndaw. ngeen foog ne man mii bu fekkoon militaire laa dinaa fi nekk naan caporal loo ma la ma tere naa la man mu ko gisee tey samay tuubay nga ne ma caporal lay tere naa parce que kooku di ko woy noonu kooku affaire bi du dara ci moom tëni bi mu sol noonu du dara ci moom kooku kooku du kooku du mun a téere président du mus a songu président du mu a te luñ ko defloo ci salle da koy def parce que amu ci benn conviction amu ci benn envie du dara ci moom moo tax fecc ak woy rek moo tax neewoon naa leen dalal leen seen xel bu dee armée Sénégal ngeen di xaar bu mu def coup d'état moom loolu moom daral leen seen xel du mus am ci ilaa yow din parce que ñoom même sale boulot ñoom la ñu utiliser faux billets ñu jël ay GIGN di leen ko ruux dem leen daaneel leader ba leneen faux bu rey ñoom la ñuy utiliser faux ñoom la ñuy utiliser corruption ñoom la ñuy utiliser parce que lan la parce que affaire bi tekkulul ci ñoom dara. wuteeg man mii nga xam ne bu may jeer sax xeex dëgg ak politiciens yi damay dem jëli sama trait militaire bi. moo tax gars yi dama jëli trait bi bu ma indee trait bi rek saaga métti leen ratatatatat seen kaw Kouachi Koulibaly Bataclan seen kaw bu sax sàpp parce que dafa am fu trait bi toll ci man dafa am fu mu toll ci man. géej waaye laa mujjee recruté wuñ ma ma dem sama yoon nekk ci rab bi di xeexal sénégalais yi nekk ci laay bi di xeexal sénégalais yi ba léegi maa ngi ci ba léegi militaire laa militaire soldaaru mbedd laa léegi nekk nekkatuma nekkuma soldat des rangs jëluñu ma mais soldaaru mbedd laa mujjee doon jël maag bi def ko sama arme di yàbbi di yàbbi ma safara seen kaw di burusu seen kaw volcan ñëwaat encore tégaat ko ci live di brousse sen kaw volcan légui mu soldaaru mbedd laa mujjee doon donc loolu mo ñun ñun problème patriote la ñak saka gis nga maa waxal dara gis nga Sénégal problème patriotisme da lañu ñak moy suñu vrai problème le patriotisme loolu lañu ñak c'est pas pour rien sénégalais bu

jugement bu mu la def noonu la mel ñun sénégalais yi problème mu patriotisme lañ am bëgguñu suñu réew barke alxuraan bëgguñu suñu tolluñu fenn tolluñu fenn kenn du parewul pour boppam pour askan wi siggi du kenn nañu mel nag lañ lay attee ñoom am na ñoo xam ni ku ci taxawoon taxawaayu moo laa mbërgën taxaw bi mu taxaw ak li ko ci yàlla may daraja ku ko ci taxawoon heure bi encaissé nga bu yàgg ba xool géej suñu ñaata moroom ñoo fi nekkoon di kaas li ñuy kaas tey jii dañoo ñëpp dañoo retourné di saaga ñooñu du fi jeex ba ci parti bële seen liveur yëpp yëpp da jot na da kii ki ñuy défendre tey dañ leen saagoon dañ leen saagoon lu leen fa dëpp lu leen dëpp ba ñu mujj kañ yi doon défendre di ko saaga mu jaral leen lu ne ñoom ñëpp ay liveur recyclé lañ parce que xamul la seen bopp ñoom noonu lañ mel c'est ça c'est le c'est le prototype du sénégalais c'est le prototype du sénégalais même entre nous ñi nga xam ne dañuy wax nii ay ay patriotes lañ noonu lañ Sénégal gars yi bëgguñu Sénégal

seen vidéo bu ñuy wax ak seen nangam ak nangam nit yi xamuñu nu ñu demee mais lu nekk dégg ngeen ko fii am na ñu ma jox deux cent cinquante million ñu ne Doro Gaye moo fi ñëw am na Elimane laa moo fi ñëw ci ñoo xam ne man musuma leen teg bët nii ci musuma leen teg bët nii ñi tourné ñi dafi live mel ni ñu yàkkamti woon rek xaa ñu sulwaa ji <laughs> lan laa man bu ma dérangé wul nguur lan laa war a dérangé ci nit mais pourtant non la nit di jogun di gas seen fokh ne ñom mën nañ ma ray mais man ay man phénix laa damay don retan ku ci nek di gas pax aca lañ ko sul fi ah sama armée la gëni ku nek di gas <laughs> pour ñom ray nañ waja xamuñu ni waji jinni matik la jinne matik dafa yag ci mbedd mi jinne du ko jommal dama yag ak jinne ba don jinne jinne duma ma jommal nit mënu ci boole gal kat ko tukk ba ma fi ni ma taxaw parce xam naa fi ma nekk mais pourtant gars yi indil nañ ma fii deux cent cinquante millions yu gis boobu ba léegi moo tax ñooñu ñëpp ku ci gis dama laa saay tu me dois deux cent cinquante millions saa yi ma amee chance wala opportunité dégganteeg door dama naan ko ah grand bi mun nga ma deux cent cinquante million <laughs> mu retaan ma ne ko non danga ma koy jox de danga ma koy jox de affaire mënul nen de gars dañ ma yéene dañ ma yéene wax xool nañ ba xool xam ne nag mérité naa deux cent cinquante millions parce que lu ku day ni deux cent cinquante millions nga jox ma ko non <laughs> da yéene nga nañ ma léegi nag yéene bi da ngeen koy matal da ngeen may jox deux cent cinquante millions loolu laa door na ko hey tu me dois deux cent cinquante millions tu me dois deux cent cinquante millions ah Elimane Lam il me aussi deux cent cinquante millions cinq cent millions yu ñu ma war dañ ma ko sas sosal ma ko ci waxal ma ko ci ci ay. donc nit yi ñuy yow di xeex mais yérewul la jàmm de ngeen <laughs> léegi yow ngeen foog ne foofu fibre patriotique am na fa man balaa maa dee ah booloo leen booloo leen ma ah bu nekkee ñi nekk tey xeex xeexkatu tey booloo leen ñooñu dañoo xamul xeex bi ku la booloo leen rek dañoo xamul xeex bi xeex bii mille en 2009 2010 dañoo booloo woon di ko xeex ñañu àndaloon di ko xeex ñii ñoo njiitu maq ñu dugal ñi ci kaso bi ñi ñu dugal ci kaso bi yëpp ñu ngi doon xeex ak ñii ànd ak ñii doon xeex en 2009 2010 mais ci yoon bi ngay doog gis ni doomu aadama yi dafa mel ni seen bopp la ñuy xeexal. seen bopp la ñuy xeexal ñii dañ bëgg bës ñii dañ bëgg siw ñii dañ bëgg nekk ci kanam ñii dañ bëgg a jiite ñii dañ bëgg yor volant bi ñii dañ bëgg ku ci nekk da am lu nekk sa biir maayin boo xam ne yow moo mais pour fibre patriotique dama bëgg sama nation I don't care about the rest non man je vis de ça et je le dis haut et chaque jour ma ne la man moo laa du lu déglu liveur te nëbbuma ko kenn barke alxuraan du Pape Alé du Akhenaton du Djidji du Mame seen du Ousmane Tounkara man sama bopp billahi du ma seetaan live kenn kenn kenn kenn aw ma sax jot saa yi ma waree gën damay taal sama laay wax mu am dix milliards de nit cinq nit deux nit laa yemale li ma war a wax askan wi dama ko koy yàbbi wax ko ko dem sama yoon sa du ma ko dégluwaat xoolaatuma ko entre pare naa ci li laa am pour wax wax ma wax ko dem sama yoon parce que am loolu damay dama ne il faut ñun sénégalais yi il faut ñun sénégalais yi ñu gëm suñu réew bëgg suñu réew di def te bañ ci xaar dara di def te bañ ci sentu dara di def te bañ ci bëgg dara lu ñu am rek ñu gëm ko santé ko suñu borom subhanahu wa taala lu ñu am ñu gëm ko sante ko suñu borom subhaanahu wa taala man je le dis nëppatuuma du ma naafeq mun a naafeq naa damay déglu kii damay déglu kii bi mooy millième fois man leen musu leen dugg ci laay fekk ma fa du bu Pape Alé Niang du bu Jiji du Maam Seen du bu Akhenaton du kenn du bu sax waa oppose musu leen dugg ci laay fekk fa Mollah Morgun muy seetaan dedet, parce que xam tax mo damay def lool du dara de parce que man dama japp ni sénégalais bima doon dama am waref bu ma war def ak sama mission mo wara war matal soxlawuma ku ma ko xamal soxlawuma ku ma ko wax soxlawuma ko deglu kenn liveur moy kuy def live lool la woyé liveur mais man duma <laughs> bu doon lool la rek ay profession ngay dem jiji du liveur kon Parce que Didi dit voilà. Je suis rappeur là. Moi, c'est mon profession. Je suis Depuis 20 ans, 25 ans. Donc, si vous voulez que je profession, euh, vraiment, <laughs> je pense que quelqu'un de fait live. Parce que si vous avez une profession, Papa Ale devient un journaliste. Baba Didi, je suis professionnel là, tu bois. Loko jox mu defal loko ci bois bo démé tamit euh kenen ak kenen amna profession donc tàng ñi ngi live rek ñu ngi woowee waaw loolu la loolu entre guillemets la rek quoi liveur du liggéey du métier liveur du du liggéey du métier dañ koy wooyee quoi entre guillemets mais fu may waxee mooy fibre patriotique mooy il faut sénégalais yi jiital seen intérêt réew di def ndax bëgg seen réew seen réew jaral leen lu ne. ñu commencé di liggéey ci sénégalais yi ay nit yu yoo xam ni seen réew rekk leen ñor gis nga ñooñu bës bu ñu commencé di jiite fii ci réew mi wallahi la azim Sénégal dina soppeeku loolu la nasaraan yi réussir nasaraan yi loolu la réussir xam nga kan moo ñàkk jom ku ñuy xam nga comparaison suñu papa yi. dañ ñu doon jàngal yar ci comparaison da doon toog rek man sama papa noonu la doon def dañuy woo ñun ñëpp ñu ñëw fekk dañuy nekk ci kër gi di wax wax ji bëri wax ñuy mel ni ay bëyu ndëpp papa bi day woote booy ñu nekk booy bu kaay leen kaay leen kaay kaay ñu ñëpp ñëw dajaloo rek mu ne ne noppi leen noppi leen ñu ñëpp noppi mu déglu leen ñu déglu benn bruit amul fekk ñooñu ñu jegal ñooñu ñëpp ay chrétien lañ famille chrétien yi mu ne ñii day ëpp leen leen de déglu leen est-ce que dégg ngeen bruit ñu ne déedéet ñii gis ngeen éducation bu ñu am xool leen seen mbokk chrétien yi ngeen wër pourtant ay gémmiñ lañ yor ni yéen ay bëñ lañ yor ni yéen ay lamagn lañ yor ni yeen mais respect buñu am ci yeen ndax dekk ak dëkkandoo mo tax defuñu li ngeen di def yeen lu tax do len xalat ni ñom seeni dëkkandoo lañ di seen même génération mënon def li def defuñu ko ndax respect buñu am ci yeen lu tax mun len len ko dello nga xam ñu rus ku nekk dam mbag deug la kay rus pa bi ne ok dem len nga gis ku nekk day yolos solo ci di dem éducation yi am solo la loolu ba ci poésie comparaison lañ koy wooyee mais benn dofub sénégalais bu amul fibre patriotique bi booy def comparaison comme nu may def naan xool leen dëkk bi organisation bi set bi nanga naa non day saaka day saaga Sénégal sénégalais buy saaga Sénégal yow xanaa sa papa nekkul fii yow xanaa sa yaay dëkkul fii yow xanaa juddoo fii brainwashing problème mu maayen la ñu am ñun ku ko waxul da ngaa ragal Sénégalais ñun dañu am problème mu bopp ñoo gën a état bu gën a baa ci euh, euh, pyramide de Maslow ñun ñu ngi ci suuf ñun tollaguñ sax ci niveau xalaat ñun ñu ngi ci besoin primitif wut lu ñu lekk warax nekkaguñ ci kaw ñu ngi ci suufa suuf pyramide de Maslow ci suuf ñun foofu lañ ne moo tax sénégalais booy waxee moom loolu lay njëkk a xalaat ngay comparer dëkk bi naka de fibre patriotique bu ñu am ñu yar leen ci ñu màgg ci dëkk bi dañuy salaw Mollah Morgun rek ngeen di dégg mu fi wax dëkk bi na salaw organisé wu calme kenn du tooñ kenn kenn du fëgg fenn kenn du dóor kenn calmement ñëpp di dox yar nga xam ni fii ay nit a fi ne nga dugg Sénégal mel ni jungle. pee pee ay damay toj sa waay e damay kat waay e damay waay waay e yow lii la la yow ay yow pee pee fum kat bum mbëkk dee wuy sama nay dee na waay waay fii ngay dugg nit dee fi ay nit dee ba jeex doo mosoo dégg yuuxu mos ngeen nekk ci kaaw bi dégg nit dee famille ba di yuuxu loolu la yàlla wax Sénégal fi naan far diine nekk fële nit di dee ñëpp waay waay yaa waay waay waay yaa yàqu nañ waay waay te yàlla nee na leen nit bu dee bu leen yuuxu bu leen jooy bu leen yuuxu mais ñii ñoo xam lu ñoom boo te nit dee du nekk ci kaw bi nit dee nga dégg yuuxu danga naan est-ce ñii ñi ngi dee et eh, pourtant ñi ngi dee. nga doo dégg mu ko yuux mais bu dee Sénégal la kër yi dañuy du faayuñ sax yàlla xamul na ne yàlla moo indoon moo jël léegi nag yow boo ñëwee di def benn comparaison du wane ni dëkk yi ay dëkk lañ woon yu yàgg yu dara amul woon lu fi am lépp dañ ko defar lu fi am lépp dañ ko tabax

François Filon. merci François Filon. ministre Moi, am ci problème bu rëy achat bu jabaram def ci carte état bi ñu ko jox moom ci problème bu rëy tubaab bi day day dañ koy dara mu démissionné le ministre de la santé bu Canada Nous, sans la santé bi ba mu Même mais moom dafa obèse gars yi

le ministère de la santé boo xam ni obèse gars yi dem bind ay des centaines de milliers de pétitions donc parce que conscience patriotique bi mortel toll fof. ñun Sénégal loolu lañ amagul c'est le sérieux problème moo tax démb ma ne benn waaye bu ma indil euh, euh, message bu ñu bu ñu dénk Pape Alé bu ko Sonko wax pour mu wax leen ko N'est-ce pas Exactement la femme de François Filon avec la création de plusieurs emplois fictifs aussi. Euh, Alenia, euh, Ousmane Sonko message message est Nous deuxième plan B ngir concentré ou focus débat APR ak problème débat euh, di lijjanti waa APR seen candidat yek yoyu te ngeen focus sur l'essentiel, ngeen focus sur sa candidature et la libération des prisonniers politiques benn waaye ñu yónnee ma vidéo bu gatt ma sétan ko ma ko réussir mu ne ma ah, ko lii Sonko lu muy wax ni duko réussir mu grand <laughs> grand no xamé affaire ma ko man sénégalais la xam man problème du Sonko sénégalais la xam. mu ne ma xam nga la ma la ma lan la ma ku ma yónnee vidéo bi xam nga lan la ma wax ma ne ko waaw ah. mu ne ma def na ma Sonko jëndul suñu crédit ma ne ko ah ma ne ko kooku patriote la mun ne ma eh non patriote la mu ne ma nee na du Sonko moo koy wax ku muy xoola ku mu dul xoola ku muy parce que Sonko jëndul crédit am ma ne ko voilà Sonko dafa yor ay patriote entre guillemets patriote yoo xam ni. ci parti bu ñu adhéré wala bu ñu bëgg moo tudd patriote ñu leen di woowee patriote moo tax Sénégal man leen yàq ngeen deru patriote parce que képp ku ne kii patriote la nga tey boo ñëwee ne kii patriote la parce que dafa bokk ci benn parti wala dafa adhéré ci parti bi wala sympathisant wu parti bi la ko jëlee yóbbu ko fii indi ko Canada wala France nga ne kii patriote la ak ni muy doxalee mais waa ji day taxaw ne kii nan la nekk patriote mais il faut ñu wane ni il faut ñu ñuy yokk patriote Pastef il faut ngeen ci yokk Pastef parce que Pastef dafa am ay patriotes Pastef mais ay patriotes pas lañ C'est pas le vrai sens du terme de patriotisme Nous dañoo faire fenn adhéré fa topp fa mais c'est pas du patriotisme ma ko nan la nit mën a waxee leader wax la nga mais pourtant il a raison ma ne Sonko wax lu mu pas Pape Alé Niang dem leen xool ci sama quatrième ou troisième live wax naa leen ko ba gars yi naan Amadou Ba pël kii la Guinée Guinée hey l'heure n'est pas ci ay Amadou Ba guinéen la ak mauritanien la malien la sur la libération des prisonniers politiques et de la libération de Ousmane Sonko et de l'éligibilité de Ousmane Sonko c'est les points essentiels dem leen ci sama troisième ou quatrième live bi ngeen ko fa

te du may déglu du ma ko déglu damay damay wax après mu ñëw wax même chose parce que ni may analyser lay analyser situation bu amee nga toog xalaat ne est-ce que lii c'est le moment est-ce que lii mooy moment bu débat bi la est-ce que ñun waruñu mun a concentrer wu. ci laa leen joxe exemple boobu ma ne leen yéen xanaa balaa ngeen di wax ci Amadou Ba ngeen libéré seen leader waa ji jàpp sa papa tëj ci laa joxe exemple waa ji jàpp sa papa tëj ci kaso bi. yow ngay dem di waxtaan ci bàyyi jàmbur xanaa balaa ngaa waxtaan ci bàyyi jàmbur libéré sa baay nii laa ko joxe ba joxe exemple bi ne leen bàyyi leen Amadou Ba bàyyi leen ñooñu ñu def seen li ñu def yéen balaa ngeen di débat ci bàyyi jàmbur bu ñu fal ngeen lijjanti seen baay nu mu génnee mais jàpp seen baay yóbbu ngeen bàyyi seen baay di lijjanti baayu jàmbur ci nam nu mu ñëwee nu ñu ko falee y problème nii laa leen joxe woon exemple bi. ci li nga xamni Ousmane Sonko yapp nako pun pour mu wax len ko amul phrase bu ci papaale wax buma len waxut avant ni barke alxuraan ni ni setan ni ngi ni di wax billahi waxon nga ko wax nga deug waxon nga ko wax deug te yalla tax ni ngi la ko waxe won lolu du ay sax ku bugg pro nako jeffe kuy patriote da ko wara jeffe waxuma ay waxu bëgg pro patriotisme la wax bëgg sa nation xam euh, objectif bu la tax a jóg waroo yoon bi parce que l'objectif objectif bi da ngeen wax ni focus 2024 focus 2024 moy 2024 avec Ousmane Sonko wala que leen veux dire. focus 2024 depuis 2021 y a focus 2024 avec le candidat Ousmane Sonko 2021 hier, ngeen top petit focus 2024 12 mois en 2023 avec le candidat 2022 focus 2024 12 mois def avec le fan candidat Ousmane 2023 kon focus c'est parce que vous ku un sa vous dem borom focus concentration focus def focus mooy lii rek guise. focus dégguma gisuma dégguma jat gisuma dara lii ma jàkkaarlool ni muy sama portable puis moom laa focus moom laay gis xool li ci ginnaaw xool li ci kanam et cetera loolu rek ma intéressé loolu mooy focus loolu mooy focus il a raison Sonko a bien raison mais ma ne ko du ko réussir waaye dina ma lu tax ma ne ko parce que sénégalais bi dafa dañ kumpa sénégalais buggul dara raw ko te sénégalais boo fi gis am na jotaay boo xam ni fa lay nekk di débat sénégalais yëpp yi nga gis ni information yi pour débat la de pour werante ngay déglu moo laa moo tax ñi ngi fépp nga leen di gis dañuy rond la ñuy def rond comme ay policier dañuy déglu live bu Mollah daw tëb dem déglu bu Pape Alé tak daw déglu bu Akhenaton tak daw déglu bu Jiji tak dem déglu Mame Sène tak dem déglu dajale da nga leen di fekk sax ci ci ñoom ñeneen ñi waa APR ya daw dem déglu ji kayis foofu daw déglu ji kaka xaw ma seen waajooju noonu dof boobu noonu nga xam ne xëy gontul foo ko fekk mu mu naa oto bi jënd naa ko sama jabar ak nangam naa te boo ko laajoo luy liggéey chômeur la buñ ko jëlee France ba léegi daw déglu kooku daw déglu xoma euh, cheikh sen sen dof bobu nonu saga euh, yalla ak ak quran bi daw déglu kooku donc dañuy melni ay wenc dayu nak di traîner légui loolu lépp pour lan la c'est pas pour yeewu dé dé pour dajale maximum d'information pour dem débat ji ko guddi gi nag ñu dem toog dajale euh le grenier de l'information tok nak ak ñom paté dem ba kumba ci jiital wax di tioko yokku buñ ne Macky Sall no Macky Sall ma ci dara Macky Sall kii nee na lii kii nee di jema jaay xam-xam jema jaay xam ak werante lolou motax pour que concentrer Sénégalais bi ci ci lu intéressant c'est très difficile parce que il est émotif de nature donc bo ñëw nan ko focus leen tamit dañ koy wax ni rek de <laughs> mais sa way dara du leen rombo Sénégalais bi dafa dañ kumpa mën a lijjanti buggul dara raw ko donc ku mel noonu nag pour nga cadrer ko na ko focusal ci lii nii lii nii nii lijjanti l'équation bii balaa ñoo dem ci leneen noonu du ko def noonu du ko def parce que bugg na xam lépp bugg na comprendre lépp pour mun a dem werante ji ko ci euh, ci jotaay yi wan leen ne je maîtrise la situation du pays dama ko xam noo dama xam lu may wax fu ma ko teg dafa wóor pour moom moo téegal gaynde gi te information jarul lu dul dugg sa xel lijjanti lëfalëj leeral la lëndëm nga xam xool fan nga jëm après loolu kese lay jariñ sa waaye moytul fii de kenn waxu la nga moytu fii dem di ko werante non da waaye def na ma moytul fii ne moon bu moytul fii kay da taxaw teg ah nee ma moytu fii lu tax ah ok non fii dafa gën a lëndëm de leerul de noonu lu tax mu wax ma loolu attends xaaral ma xool non yoon bi bàyyi ma dem noonu moytul fii loolu lay jëriñ mais moytul fii du pour nga jël ko dellu naan waaye dama kii mu ne ma moytul fii ma ne ko noonu nag fii après ci laa tëb tëbaat tëb sama caay naaw may feewi feewi mais xoolal naa non c'est que ñun problème boobu la ñu am te da dem ba ay nit di la seetaan seetaan seetaan ba foog ni ñoom ñooy sa bàyyi sax ñoo la war a canaliser. gis day dem ci ñuy seetaan ba foog ni ñoom ñoo la moom <laughs> wala ñoom ñoo la jur wala ñoom mission bi ñoom ñoo la ko sant di la ci sax imposé ngay ñëw yor ay dossier di teg nga ñëw loqati le dossier de Amadou Ba teg ak affaire phobie yi ñu ko doon jéem a diis pour yàqal ko et cetera cetera nga ñëw indi dossier boobu teg am na koo xam ne ngi taxaw fi naan la waaye mais gars yi ñun suñu yoon newul ci kii waaye mais boobu moom défense lay gis foofu <laughs> ku subir injustice ñu défendre la ni ñu dafa défendre Ousmane Sonko daf ñoo fay bu ko Adji Sarr sosalee tuumaal ko fenal ko takkal ko daf ñoo fay injustice la doon dund ñu défendre ko léegi kon Amadou boobu moom amul mérite. muy dund injustice ñu bu ko sànq ma défendre ko wala wala pour ma waxal ko wala moom amul mérite boobu wala moom la nday moom ndayam baaxul moom man damay damay xeex injustice mais dof boobu moom du gis loolu moom moom day gis directement damay défendre waa ji waa waa nee naa leen Macky Sall sax suba bu subiroon injustice ma défendre ko parce que man défendre injustice moom mu boole ak Ousmane ko dama gis ñu koy sosal di ko tiiñal ma ma xeex fayu ma de moom mu ma juruma

boo leen ko réussirul mooy Macky Sall moo réussir parce que bras de fer moo fi entre Macky Sall ak Ousmane Sonko bras de fer moo fi depuis deux mille vingt et un indi lii lépp coow lépp bras de fer ko indi dinaa def fi élection te doo ci bokk waa ji ne citoyen sénégalais la day bokk ke utiliser les armes de l'État di ko que la population bi gis injustice bu muy dund ñu taxaw jappalé ko non moy xex bi motax tax bu ñuy jël yenn affaire diko fétalé ay Ousmane Sonko nan moko wax peuple bi damay ré dama nan ni xamuñu peuple bi Ousmane Sonko lum leen wo ñu dem ci da neex parce que dañoo gis ni Macky Sall ak Ousmane Sonko dañoo taxaw depuis 2014 Ousmane Sonko Macky Sall diko xex pour éliminer ko ci lako un dàqee de domaine ci lako un dàqee de domaine ci lako djema jéem sénégalais gis lolu mu metti len Macky Sall utiliser les armes de l'état pour faire Ousmane Sonko peuple bi gis beaucoup bugguñu injustice ñu dem ranger derrière Ousmane Sonko pour le soutenir contre Macky et l'état donc c'est Macky et l'état les armes de l'état les institutions de la république ont def le peuple derrière Ousmane Sonko du soutenir parce que injustice est indi Ousmane Sonko du dem peuple bi ne Ousmane Sonko day dem problème bi qui bu ñu dernier moment ñom ak seeni pouvoir de manipulation de mensonges dérisoires. Nous avons dit que nous avons dit que nous subconscient numéro 2 et numéro 3. si nous avons dit que nous avons commencé à flancher, nous avons commencé à perdre le réseau. Parce que si nous avons dit que nous avons dit 2023, nous avons dit que nous avons imposé un débat au deuxième et troisième c'est parce qu'on a flanché pour on a baissé Mais on avait dit depuis 2021, faut que focus 2024 pour le candidat d'Ousmane Songo. Là, nous avons changé. Le PC politique, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre à dire. Ce qu'on sait, l'a loi et les règlements. dissolution de PASTEF, il n'y a rien amul Il n'y a règlement d'autre à dire l'emprisonnement d'Ousmane Ousmane Sonko dañ defuñu ko ci loi ak règlement jaay doole la léegi ñuy wax ci ay waxu l'inéligibilité de Ousmane Sonko du loi du règlement jaay doole la jaay doole la kon amul lenn loo xam ne loi ak règlement jaay doole la donc le peuple doit encore s'organiser et se mobiliser encore et encore pour nekk ci seen lu ñu seen yoon bu ñu nekkon ak seen ngëm-ngëm gu ñu focus ci ne dara du ñu dara du soppi ba Matusalem gisaguñ fi lu war a tax lu daane Ousmane Sonko ba du dem amul dossier boo xam ne dañoo condamné Ousmane Sonko définitivement amul ci l'affaire Adji amul condamnation définitive amul parce que woon max baa ngi foofu jàpp nañ ko gis nañ ko sur l'affaire Mame Mbaye Niang yóbbu nañ ko euh, euh, cour cour cour euh, l'autre cour la am na beneen cour tamit donc ba suñu jonn yàllay tey ci suufu yàlla ji Ousmane Sonko est éligible donc fan lañ toll ba jamono ji nit yi di xalaat ay deuxième ak i troisième bu boobaa ñoom seen manipulation réussir nañ ko ba suñu jonn yàlla tey amul fenn fu doomu aadama di wax ni Ousmane Sonko du dem parce que il a été condamné définitivement te wootewuñ appel wootewuñ dara affaire Mame Mbaye ngi cour suprême affaire Adjissa, on dañ koy donc ba léegi nii Ousmane Sonko est éligible c'est quoi le problème donc waratuñ toll ci di di l'esprit défaitiste

lolou buñ ko amé yakarna ni communication bi du jafé Sonko c'est vrai dafa irrité d'une population bo xamni très émotive lolou motax ay message am comme ñun jafé jall ci biir sénégalais lolou moko mais vous faites qu'on fait fait une population très très très éveillée patriotique en conscience patriotique en amour patriotique bi bu des informations, des information wala message am vite fait mais de vous trouver population vous avez ni vous <laughs> fi laaj ce démb loo le <laughs> problème la laajal qui ma euh, Aminata Jaxate Ba bërki dem la la reere boo deful ndànk dina la jëlal deux deux heures de temps pour wax la ko bërki démb laa la wax bërki démb donc <laughs> sénégalais bi day fàtte bërki démb lu mu reere soo ko ne bërki démb loo reere il aura d'énormes problèmes pour wax la lii laa reere donc population boo xam la conscience historique bi du garder mémoire bi mémoire historique bi du garder dara loolu moo tax Sénégal lépp am na fi ñu débat ko ñaari fan fàtte ko lépp am na Sénégal fi ñu débat ko ñaari fan fàtte ko moo tax ba ñuy wax ci yow sax dañ naan non muñal lii yàggut day léegi ñu fàtte ko ah, yow lii parce que amuñu benn mémoire historique bu ñuy denc ay affaire loolu moo tax politiciens yi di leen utiliser saa su ne ci campagne di leen xalab parce que dañuy fàtte Sénégal bi ngay jàpp tey gis ngeen Abdou juuf daf ñu toroxaloon toroxal boo xam ni jàpp suñu papa yi leen dàq ay fonctionnaire dàq policiers yi tiire seen kaw lu ne ñu def leen ko bu fi Abdou Diouf di jóge Ablaye Wade dañoo toog Abdou Diouf ku baax la ku baax la c'est que ñu mu amoon ñoo bon Abdou Diouf non kenn gënu ko te te deux ans derrière lu ñu waxul du juuf amut mais fàtte nañ lépp comme lu ñu fàtte seen ñaareelu fan yi ñu reer wala seen seen reeru bërki biig Ablaye Wade ñëw ñu commencer fara Wade njaag daara Wade njaag moom tamit mu utiliser leen jël ay doomam teg njabootam teg indi Wade ga indi ñëw ñëpp ñu toog teg ay mbokkam ñu wulli sénégalais yi ba ñuy bëgg a dee rey ay nit tiire seen kaw ñëpp na nañ fi jóge tout sa wàdd tout sa coow li ne riir démb rek dégg nga leen ne wàdd kenn gënu ko non wàdd dafa wàdd njaag du du moromu Macky Sall sax gis nga wàdd non billaay doom ji moo ko yàqal mais wàdd non bu dul woon doom ji heure bi nekk na quatrième mandat heure bi non duñ ko fi jëlee noo pas boobu kenn ko. te pourtant da leen a rey ñoom tiire leen ay bal rey Mamadou Diop ay butitam génn jaar seen kaw tiire leen rey ñu bëri. booy bu sant ba sangal kam tiire leen rey leen dagg jël affaire yi sàcc alal gi ay milliards rawale mais gars yi dañ toog di ko di ko kii parce que xamul tax nu mu leen wax rek nee naan conscience historique boobu moo day eh, boobu moo newul ci ñoom dañuy gaaw leen baax la ma dans deux ans d'ici déglu leen di ngeen di ngeen dégg di ngeen dégg wax ji non Macky Sall pourtant ku baax la woon nag Macky Sall kenn gënu ko def na fi de no gis nga Macky Sall mi ngi non wallaahi xoolal troisième mandat yoo ko yàqal mais xoolal non Macky Sall di nga ko fi dégg di nga ko fi dégg ñu fàtte lépp lépp la fàtte parce que yoruñu ay mémoire d' éléphant loo ko def cinquante ans cent ans bu la jekkoo da day fay parce que day du bàyyi du bàyyi bu la xàmmee la ko def cent ans boo ñëwee mu mu mu def la ko man maa la wax loolu yàlla ñu fi yàlla bàyyi di ko fekkee ñu taxaw ne Macky Sall kenn gënu ko lii ak lee la wutal ko ay alibi <laughs> sa waay peuple bi mooy doxee noonu dañoo gaaw a fàtte dañoo gaaw a fàtte loolu moo tax politiciens yi loolu la ñuy conscience citoyenne boobu noonu muy garder ay euh, mémoire mémoriser ay acte mémoriser ay fait mais Sénégal lu fi amul amul ñaata yoon lañ fi doon génn di xeex pétrole gaz ku ko xeexati té pourtant jëyee jooju mi ngi fi ba légui Mamour Diallo 94 milliards mo indi affaire Adji Sarr

depuis bobu amour bobu dafa wacc parce que man mënuma gëm ñaan naan oui bon parce que Sénégal bon voilà ñu ñu doon xeexee jàpp nañ leen mais un peu de respect au Sénégalais ñi yu libre japp ñu 1000 japp ñu 2000 manam japp ñu 2000 japp ñu 3000 mille le Sénégal c'est 17 millions de Sénégalais moins de rien y a benn quinze millions de Sénégalais nek bir Sénégal quand même 15 millions bu ñu ci 2000 sax loolu waru tax mu jeex Région il y' a plus de 14 régions au Sénégal les gars comment lañ né mom rey nañ 90 wala rey nañ 100 japp nañ 200 muy 300 ngir xex mëna tu fi am parce que ñoñu ñu fi ñoñu ñu ron xex yépp japp nañ leen kon 300 yo ron xex dëkk moy xex wala 300 moy xex donc man yooyu mom góomu ko loolu moo tax la politicien bi du mus a yoon bu muy jël parce que daanaka Sénégal bi dafa gaaw fàtte lu mu xeex tey kul ko suba loolu moo tax Ousmane Sonko yàgg ci kaso bi bu leen fàtte ne jour bu ñu jàppee Ousmane Sonko jour boobu la xeex ba tàmbale le premier le deux le trois le quatre le cinq mu arrêté waa ji commencé di jàpp ni di moom di continuer depuis boobu xeex bi amatul. Ousmane Sonko mi ngi daanu na daanu wat daanuwaat daanu wat jóg ñu nan tay la dété ba depuis bobu ak lepp lu fi am sénégalais bi toogatu parce que xam lu affaire bi ngi commencé res dañ mer mer bi mi ngi commencé di res mer gi mu meron di cupp di genn di tal, di toj di rajaxé di boyal mer gogu mi ngi commencé res parce que ñoom politiciens xam na ni ki ñi mën na mer mais bu meree touti day faté pour mu revenir at bu xasee ba fàtte wala aal gi commencé res pour mu revenir at c'est tout un problème loolu moo tax Ousmane ko yàgg ci kaso bi instant yi comme ni mu koy waxee moom kaso bi jaamu yàlla la ko def loolu rek ka fi des di yàgg na fa trop ñu ngi dem ci ay weer ku ne ñu woon waaye dina fi toog ay weer ci kaso bi kenn du kenn du ko gëm parce que quoi que l'on puisse dire ñun ñoo taxaw nu ñu taxawee nag moom mooy. Macky Sall xam na ni plus que mako fi bàyyi plus que sénégalais yi di di bàyyeeku di bàyyeeku di bàyyeeku di bàyyeeku bu muju nan ay non plan B plan B kon ñooñu ñi ngi bàyyeeku seen waxu demb du seen waxu tay ku won nan focus 2020 Ousmane Sonko dem ba muju ñu japp waji ji muy yàggatu di yag nga nan ba muju ci plan B ma wone ni yaa bëgg a sa yoon yaa bëgg a fa nga nekkon ca la nga jàppoon waaw donc. dara les gars dara nous devons revenir en force nous devons revenir en force et beaucoup encore beaucoup plus de détermination Nous devons def esprit défaitiste Nous ñun perte nañ wala ñun ñak nañ ans de prison la Nelson Mandela def ci ans mo mujjé don président des années durant lañ japp Abdoulaye Wade depuis jeune ba bu mu nekkee pas mujjé président donc fi tant que ya ngëm ni yalla mi ngi fi bo xexé yalla mën na la défal ndam li lepp yalla mën nako ko dëpp mais nak ci kaw ñu xex de yalla du magicien dé ak bëri doole mun lepp mais du def magie dalay e tagal ne le puusal dalay e tagal ne le puusal doo tok sa kaw lal digent ay milliards am ko de dangay dox bo doxé ñu nan pendum tank gën pendum tat ngay dox sax mun nga for mais bo togué do for deugalul deug ci a 10000 chance for mais boy dox mun nga daj lu ne donc il faut ñu def ay effort jëm ci xex bi yàlla yàlla bay sa tool foog ñu def ay effort jëm ci xeex bi moo tax chaque jour ma koy rappeler les Sénégalais ne leen gars yi toog bi yàgg na de te Macky Sall bu dee nii lañ ko jàppee non Macky Sall du gaaw a bàyyi waa parce que lañ doon yaakaar sëriñ yi nee nañ leen Macky Sall déggul sëriñ faalewul sëriñ lijjantiwu leen sax ñaan nañ ba sonn toog voilà jamono jii ma ngay doxal ay plan ma nga non di dem amerique ci congrès aux Nations Unies bi du paré ñëw bobu mu bàyyi Ousmane Sonko ci kasso bi mu ngi bëgg yag té li fi dess fu néni 4 mois la bu ñu sàgganee Macky Sall da fay baye Ousmane Sonko ci bir kasso bi 4 mois té Ousmane Sonko danger bu mu am ci bité mo ëpp fuuf bu mu am ci bir parce que waxu Ousmane Sonko daf dafa dafa dafa am fasaa dafa am fasaa yàlla moo ko def dafa am fasaa Ousmane Sonko di wax ak yow moo ëpp doole foofu ëpp baatin que mu yabal nit mu yabal nit ak ku munti yabal boo waxee ak Ousmane Sonko bu waxee non mënul bokk mënul bokk. donc soo Sonko nekk ci biti da wax ak sénégalais yi beneen envergure la beneen lu mystique la lu lu lu lu mystérieux la donc fuñ toll nii mooy dama koy tëjee waxu Ousmane Sonko bi nee ngeen focus sur l'essentiel na seen waxu démb doon seen waxu tey nee ci li ngeen nekkoon bu leen ko bàyyi nee na ngeen génn ci détail waa APR ñoom ñi ngi teg seen plan nan la ñuy def ñoom ba jàll ngeen bàyyi ñooñu ci seeni départ ak seeni détails yéen ci past waa Pastef ak sympathisant wu Pastef yi yi ngeen doon di ko réclamer mu nekk ci yéen ngeen ay patriote ngeen nee na bu dee déggal ngeen ko ngeen sëgg ci focus ci moom mu dem ci élection yi moom Ousmane Sonko ngén bàyyi waxu deuxième ak troisième ak plan B C D E F ngeen ci li ngén nekkoon moy focus 2024 pour le candidat de Ousmane Sonko la candidature de Ousmane Sonko et pour la libération des détenus politiques kooku sas na leen nee na ngeen ci ñaar yi néna daf leen sas bu leen bu leen ko yërëmee yéene ko ngén nek ci ñaar yi moy pour la libération pour sa libération et des détenus politiques et pour sa candidature c'est à vous de choisir est-ce que vous avez kese que ku ci vous que yi soxla dossier yi ñaari dossier yi vous dit dossier vous que vous dara candidature nañ def lu leen neex seen candidature mais yéen lijjanti leen seen candidature Ousmane Sonko ñaari dossiers yi la jox peuple sénégalais bi nee na am leen lii laa bëgg ngeen traité ma bii mooy fexe leen ba man ak bépp prisonnier politique mu am libération ne peuple bi yéen laa ko dénk ne bii mooy bu leen lijjanti kenn candidature am di wax ci kenn ba ci perte temps wala ba ci xeex wala ba ci xuloo wala ba ci werante wala di wax ay waxu deuxième ak i troisième dauphin wala di wax ci ay plan A wala plan B wala C ngeen jël ni benn plan moo fi am mooy seen waxu démb ak bërki démb pour la candidature de Ousmane Sonko aux élections présidentielles de deux mille vingt quatre ñaari dossiers yi laa leen jox jafewut de.

da ñii ay sympathisants lañ ñii ay partisans lañ yu bokk ci ay parti mais ñun dañuy live di wax lépp man suba mun naa taxaw wax leen wax wax wax ci Aby Ndour wala wax ci keneen ak keneen <laughs> parce que de ci waaw ak déetu Ousmane Sonko demeewuma ci waaw ak déetu Ousmane Sonko bokkuma ci partem duma élément am damay xex sama Ma démb ak sama xeexu tey mu subir injustice ma wax ma mun profito wax ci mom ci yéen lim leen sante <laughs> mais du man de non du man de bokuma ci partem partisan concept philosophie mais du man doxewuma ci euh, ci ay ak donc yéen laay wax man suba man man man Sénégal laa fi nekkal moom laay wax suba bu ma gisee ku ñu intimider ma wax bu ma gisee ma waree wax ci damay wax ci capitalisme ma waree wax ci impérialisme damay wax ci impérialisme ma waree wax ci panafricanisme damay wax ci panafricanisme bu may wax ci masse populaire indigène wala exploitation damay wax ci euh, euh, parce que man benn Sénégalais laa buy buy euh, toj ay problème politique ak social ak et cetera et cetera mais dama ne yéen. kàddu googu ngeen sàmmal ko Ousmane Sonko nee na ngeen farlu ci sa libération et la libération des détenus politiques et sa pour sa candidature aux élections présidentielles voilà loolu moo fi nekkoon waxtaanu tey bi moom lañ fi amoon di leen ko rappeler rek ay rappel la di leen wax ni ki nga xam ne it mooy euh, ngeen bañ a miser wu parce que nu ma leen ko waxee sëriñ yi wax nañ lañu war a wax gars yi kenn Macky Sall faalewul sëriñ dégluwul sëriñ lijjantiwul sëriñ ngeen sëgg ci wax ci parce que gars yi bëri nag <laughs> seen bopp lañ fi nekkal de boo leen gisee benn abi génn di ratatati naan Amadou non non non non dafa am ay litige foncier dafa sàcc terrain jàmbur bu leen fàtte moom dafa sàcc terrain jàmbur fu mu nekk noonu propriétaire boobu bu Abidour nekk du moomul moomu ko de restaurant fu restaurant bi nekk déedéet jë moomu ko terrain jàmbur la mu sàcc terrain bu ndey astu aaj la bu nekk Amérique di jaay restaurant moom moom terrain boobu ak jëkkëram moom ndey astu aaj mu ñuuj njaaj moom Aby Ndour njuuj njaaj sàcc teere jàmbur def fa restaurant loo xam ne dossier boobu dinañ leen koy indil terrain ñu nekk Amérique New York xam nañ li may wax nday astu aaj bu yor restaurant moom moom terrain boobu këyit yeeg titre foncier bi yëpp ñu moom moo ko moom Aby Ndour sàcc ko ci ay affaire politique ci ay njuuj njaaj moo tax mu retourné di wut wo wéeruwaay kii waxoon bër ki démb ne Tanor mooy candidat am ak candidat la gëm moom PS euh, euh, euh, original bi la puriste PS la ak yooyu kàcc rek la def waa nde astu aaj bu Youssou Ndour doon waaye moo ko moom noonu terrain bu restaurant Abi Ndour boobu ngeen gis noonu moom moo ko moom papier yëpp maa ngi yëpp maa moom depuis 1996 la ko am depuis 1996 mu sàcc ko <laughs> voilà wala ngeen gis ko noonu muy jaabante di dugg ak génn di wut terrain jàmbur bu mu sàcc man maa ngi naa nangam pour terrain jàmbur euh, bu mu sàcc salon de coiffure la waaw salon de coiffure la bu ko wax ma ne restaurant salon de coiffure moom ak soo mari Mbaye Thiam ñoo jënd terrain boobu depuis 1996 mu ñëw sàcc terrain jàmbur jaay ci doole refusé wu refusé derrière Khalifa Sall réfugié wu derrière Khalifa Sall bu mu nekkee maire seetlu leen de Ousmane Tanor Dieng la waxoon mu faatu mu réplique daw dem ci xalifa Sall bu mu nekkee maire de Dakar. tiriande ak trafiqué ak réfugié wu ci kii ñëw pour mun a sàmm li mu sàcc ci doomu aadama yi terrain jàmbur yi nday astu aj bu yor restaurant bi donc foofu la sàcc ba loolu moo ko yóbboon ci xalifa ci maire ba léegi dégg na ni Amadou ma ngay daw foog ni fu mooy tégal gaynde ga noonu la ñuy liggéeyee famille yooyu famille sàcc lañ famille trian famille fen famille vampire fam famille yoo xam ni du ñu ñàkk woy maamu jàmbur yi lañ fi nekkee ak martaat ak topp ku ñu yaakaar ni ci lañ mun na leen teddloo ñu yàlla jëm gëmuñu yenentu mar rek la ñuy mar comme ay charognard voilà pour l'instant ñam ma ngay daw di am leneen lu mu rijjanti kon dina delloo terrain jàmbur yooyu ndax la muy yaakaar du am donc les gars maa leen di bëggee bu baax di leen sant leen gërëm di leen wax ni dossiers yooyu yëpp dinañ ci ñëw yooyu yëpp am na ay dossiers yu garaaw garaaw ci ay affaire suuf yoo xam ne bu soobee yàlla dinañ ci ñëw ne vous inquiétez voilà il y a un autre dossier bouton doy tamit ay titre foncier oui, mais bon, xam ne euh, ay hectares hectares hectare, voilà une ñu Bon, euh, bokk na terrain zone de captage bi avez di Il y a 14 hectares qui a été vendu à 125 000 francs le mètre carré. Ils ont encaissé 17 milliards 500 millions. Qui, qui remboursé on lui a donné 150 mètres carrés comme compense ce qui constitue une parcelle Z32 Ousmane yooyu yëpp mi ngi fi ay preuve yoo xam ne mètre carré yeeg yooyu yëpp voilà yëpp ay kër la ay litige foncier la yu gars yi nangu ay terrain jàmbur ay centaine de mètres carrés jaay ko tirande ko lekk ci ay milliards yëpp ay këyitu yoo xam ni lu ñu loqatee impôt domaine la yu ñu numéro beneen a ngi nii ci ay jeu de mots de mafia de trafic yep ay terrain la ki Amadou bab moko signé moko tamponné voilà terrain la Amadou bab signé moko tamponné donc tous ces documents sont ici ci samay loxo ci bu sobe yalla dinañ ko tek fi ci Sénégalais ñu xam euh, sen alal fumu dem parce que Sénégal amuñu économie Le lu am trésor impôt et domaine impôt c'est le fric domaine euh, impôt c'est le fric domaine c'est le foncier Faut la à ga impôt et domaine le fric et le foncier dinañ ci ñëw inshallah dans ci débat bu doy war titre foncier yépp e, l'air ko voilà ñi nga xam ni ak mbàkke yu fay ñi nga xam bu e, les terrains aux alentours du phare de Mamel ou Mbàkke Mbàkke et après ces terrains sont enregistrés par ces Mbàkke Mbàkke e, si un tour et, à, e, à la fille de Baba Korngom, Antongom Sedema pourquoi elle et son père imposent des Djaï aux habitants riverains d'Almadi 2 en imposant un poulailler très sale avec une odeur nauséabonde qui empêche l'environnement de la cité.

Amadou Wuri Ba Amadou Amadou Ba tuddul Amadou Wuri Ba Amadou Bayal Ba la tudd Amadou Bayal Ba Amadou Bayal Ba ñu naa leen nag man sama xeex xeexu conviction la waaw xeexu conviction la tam ay principe la du ma waxal kenn lu ma xamul du ma waxal kenn lu ma gëstuwul walla di bugg a wut ay dëgg ba ma wax loo xam ni euh, xan xam naa ni du dëgg mais ma koy wax loolu moom bokkul ci samay principe bu xeex Amadou Ba tuddul Amadou Wuri Ba Amadou Ba du Guinéen Amadou Ba du Guinéen ni de père ni de